تقرى إلى الله وحده yanaalul maqaama la raja ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dinañ ko ngir mën loo xam ne dina xew fii ci biir réew mi wala bitim réew ci yoonu dagga kooku waaxu ba fekk ko fi mu téye welo bi mu ne ko waaxul xëyu sëñ bi mu tiit ne ko sëñ ban ndax boobu mosu koo gis mosu koo teg bët mu ne ko Seydou El Hadj Wandaw mu ne ko koo xamuma góor gi fële ko ne ko waaxul kële du waxantu wax xam na ko mu ñëw mu nuyanteeg moom jàmm sant laataa mu naan dafa bëgg a ñaan wér sëñ bi ne ko ndax jàpp nga saaxo alaaj baaw saaxo la jarul sax may nëbbu tur wi noonu alaaj baaw saaxo la ko kooku dajaleen maanaam ba muy ñaan El Hadj Wandaw yàlla Seydou El Hadj baaw saaxo la ko dajaleen maanaam li ma bëgg li ma jublu ci wax ji mooy ñu fobowaat ñun ñëpp ñu fobowaat maanaam xam ne ñun suñ xol yi mooy suñu hitte ci àdduna bi ni ñu defar ko ci bu ëllëgee ñu dajeeg yàlla taxe loolu mooy suñu hitte ñun te ki nga tànn ni mën na ko ki nga tànn mën na ko wallahi wal quraanil aziim kii mën na ko kon li ci des mooy ñun ñu foobu takku dëgër gis nga Seydina Aliou Ndaw bëgg naa ko nii sopp naa ko nii xóolu naa ko nii balaa ngay xam dëgg dëgg dëgg li tax ngay bëgg ak li ngay sopp ak li ngay xóol ak li sëy daala yowoon daw di def ci xol da dem nga ne ci yéex ci wér daan bi jàpp ko ba yëngati ay pere salaat fàtte après ngay xam yow ki nga war a bëgg nii maanaam li mu xamee lan la moom loolu laa bëgg ñu bëgg cee dolleeku Seydi Aboubacar Sakho dafa am benn melo boo xam ne daan na ko tànn di ko nettali ci taalibe nu mu war a mel ak sëriñam bii laay jeexalee sëñ ngeen maa ngi tuub bu baax di jéggalu dana am lu ma la bokkal moo bari léegi bu ko defee maanaam kooku noonu maanaam dafa ñëw Seydi Alaaji Baaba Saaxo di nettali ni nga xam ne noonu la taalibe war a bindoo jëm ci sëriñam mu ne ko taalibi de war naa mel ni taalibi bii nga xam ne dafa ñëwoon ci sëriñam di ko ziar si sëriñ bi ne ko tey nag dafa am lu ma bëgg taalibe bi ne ko lan la mu ne ko tey sa bopp way juru góor moom laa soxla woon mu ne ko waa baax na mu daw dem ñibbi ba mu demee daas paakam ba mu ñëw mu tëdd paaka bi ba heure bi mu dàkk ne heure bii nii bàyyi ji war naa ne ci néeg yaay ji daw ne saraax ci néeg ba daw ne saraax ci biir néeg bi ba mu ñëwee dafa raas rek daj ci benn bopp rek ak sikkim rek na naj ko ci lal bi rendi ba bopp bi dagg mu def ko ci mbuus gi sëñ kër rek mu ne bëreet jëmali sëñ ba ba mu ñëwee ne groupe ci buntu nekk sëñ bi fëgg sëñ bi ubbi mu ubbi jàkkaarloo moom mu ne ko lan la diw mu ne ko lan ma waxoon def naa ko mu ne ko diw def ngaay mu ne ko man la ma la doon mu ne ko lan la mu ne ko bopp ba nga ma waxoon moom laa indi sama bopp a baay bi mu ne ko kon def ngaay mu ne ko noonu def maay mu ne ko mu ne ko man dama la doon kafe mu ne ko man suma diggante yow kaf nekku ci loo ma wax ma def ko muy dëgg mu ne ko bisimilah mu dugg mu jël torse bi ne ko tekki bus gi mu tekki mu taal torse bi teg ko ci kaw bopp bi ne ko ndax lii sa bopp a baay la waa ji xool ne ko déedéet lii de du sama bopp bàyyi mu ne ko kii guddi bu jot daan na mooy ak sa yaay lislaam dagal nañ ci moom rey ma doon ci nattaale pas-pasu muridu sadiq ndax yow li ma toppee mhm. bëgg ko ci man ndax loo nga ko wala xelloo ko loolu laa doon nattaale ci yow mhm. waaye tey xam nga ngërëmal lislaam ndax kii lislaam rayoon na ko waaye lépp loo xam ne yaa ngi ko doon sàkku ci man en tant que murid sadiq tey laa la koy jox pas-pas boobu yaakaar naa sama kalaat gi ñoom amaguñ ko moom. ngërëm bi la. wax dëgg yàlla sant nañ kontaan nañ dëkk bi yëpp nag ko defee kon ngërëm li may mujjee nag mooy jigéen ñi rek bëgg nañ ci ñoom wax dëgg yàlla bis bii daal wax dëgg yàlla ñoom ñoo gën a taral na def nañ ci seen manin def nañ ci luñ man ak luñ manul lépp boo xoolee paas bi fi mu toll nii wax dëgg yàlla su taaroo jigéen ñi la soo kaa gi moom bañ a ruux rek da sol toog nag waaye wax dëgg yàlla taar bi moom jigéen ñi la kon ñu leen sant bu baax di leen yàlla di leen kalaameeg sëriñ bi kenn ku ne aajo bi mu xam rek mu fas ko ci xolam mu sëriñ bi ñaanee rek dugg na dégg nga ni mu ko waxee nee na moom ñaanam yàlla du ko delloo képp ku ci am aajo buy ñaan rek yow fasal ajo boobu rek sa mbaxal ko ci biir ba xam feeg déwén yàlla nañ fi dajee bu kenn man yàlla mën na ko yàlla na ko def barke yonent bi sàllaa moo ne Muhammadul Muntaqa lim fi wax mu ne li nga wax yëpp sa waxi bàyyi Seydi Mouhamadou mu mu ne li nga wax fii mu ne li mu wax moom mii mu ne li may wax nii moom mu ne loolu waxi Seydi Mouhamadou Mountakha mu ne loolu Mouhamadou Mountakha moo ko wax mu dégg ko mu def mu gis mu ne li nga wax ne sa maam nee na mu ne suma doom yi du seen morom li koy seede mu ne mu ne sa baay Seydi Mouhamadoul Mountakha lim def mu ne loolu ndax dana ku ko xam ne dana ko topp ndoorati ndax xam na loolu ku ko def mu ne xuus ci géej gi ci 704 pënd bi topp la mu ne est-ce moom li wax loolu lu seede ci loolu mu mu bi def mu ne li sa baay wax mu ne li sa maam Seydi Alaaji Omar wax ci Seydi Montax ci doomam yi mu ne seede boobu rek doy na ci tegtal Mune ne loolu rek doy na segtal mu ne ba tey li mu wax Mune mu ne maa mu ngi jéggalu ci sa nopp mu ngi jéggalu ndax Sadiq bi ci daara ji mu ne sa waxi bàyyi lay nettali mu ne moom mii sëñ Mountakha moo ko alaji Keba Mbay mu ne booba Keba Mbay mu nga amee quatre cent mbaar bu bees mu ne mu di mbaar bi pepp ba mu fees del ba mu ne Omar Keba Mbay kaa leen yóbbul ma ñii kën ma demba doy ngeen ma ci. بالفرج والنصر والتمكين والفتح بنا فقد سابق لا حولك الا بالله سيدنا محمد رسول الله امين يا رب يا رب لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف بعباده يرزق الله يشاء ويقدر يسس ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم امين يا رب بجاه برمك اللهم استغفر على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادم سبحانه وتعالى بالعقل ونادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرزق والرحمة والرضا والتيسير تغلق بها أبواب الشر والفتنة والفقر والتقصير وتقول لنا بها ولي النصير أنت ولينا ومولانا ونعم المولى ونعم النصير الكريم جواد وقبل خلقتنا مين يا وجه الكريم يا الله اخلها واجلنا الى محن بيت الله يا حبيب امين اسالك يا ازياء بسم الله الرحمن الرحيم وحرمة بسم الله الرحمن الرحيم وحرمة بسم الله الرحمن الرحيم بجلالة بسم الله الرحمن الرحيم بجماله وكمالي وغيبتي ومنزلتي بملكوتي بجبروتي وكرامتي وثنائي وبهائي وكبريائي وسلطاني وبركتي بقوتي وبعزتي وقدرتي بسم الله الرحمن الرحيم ان لا تنال ذنبي قرا الى الله وحده yanaalul maqaama la raja ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala da ngeen di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dinañu ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew mi wala bitim réew